الحمد لله الذي جعل الأمانة شعار الصالحين ومنح الأمناء الهيبة والجلال في قلوب الناس أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله جعل الصفة الأولى للإنسان الأمانة واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله لقبه قومه قبل ان يبعث رسولا ونبيا بالصادق الامين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الذين عرفوا قدر الامانه فحافظوا عليها فرضي الله عنهم أجمعين أيها المشاهدون الكرام لسفينة تي في أخوكم وصديقكم إمام أبو بكر مبوت يسلم عليكم ويقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yéen mbokki téléspectateur yi nga xam ne yéenay seetaan suñu émission makaarimul axlaaqi muy jikko yu rafet yi ci seen télévision Safina TV seen mbokk seen xarit abu Aboubacar Mbodj moo leen di nuyu di leen ziyaar di leen balu xaq di leen bal xaq gannaaw bi ñu sante borom bi tabaaraka wa moom mi nga xam ne moo def kóllëre ak sàmm kóllëre muy màndargab ñi nga xam ne ñooy ñi yiw ñépp kolere googu nga xam ne itam mooy jox ñi nga xam ne dañ la wóolu seen xel di dal ci yow te mooy tax yitam ñu bëgg la ci seen xol ñoo ngi sedd ne buur bi tabaaraka wa mi nga xam ne moom rekk lañ war a jaamu te war ñu ko bokkaaleek dara te moom lañ war a topp ay ndigalam bàyyi ay tereem moo def sàmm kóllëre muy melokaan bi jiitu ci boo xam ne nit ki daf ko wara melo ndax itam mooy màndarba bi ñuy xamee ne kii nit ku yëkkatiku la waaye itam mooy tax ñu mën koo jox palaas bu kawe di seede ne itam suñu sang muhammad sallallahu alayhi wa sallam jaamam la yonentam la te mooy ki nga xam ne aw nitam dañ koo dàkkantale woon ku mën a sàmm kóllëre muy ab avant muy nekk yonent ñu tudde ko wax ku dëggu ki ku wóor ki ku man kee sàmm kóllëre yal na yàlla dolli xéewal ci moom ak i saxaabaam yi nga xam ne ñoom xamoon nañ dayob matal kóllëre ba taxoon ñu di ko sàmm yal na yàlla gërëm leen yéen mbokki jullit yi borom bi tabaaraka wa taala ngi wax ci téereem bu tedd bi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا سورة الأحزاب آية 72 borom تبارك وتعالى نينا كل ري dama ko gaaral bi ma ko sàkkee ba pare dama ko gaaral asamaan ak suuf ne dama bëgg a sàmmanteeg yéen kóllëre gaaral ko suuf gaaral ko montagne yi ñoom ñu ne ah kóllëre day diis na diis goo xam ne daal ñun yàlla dëgg-dëgg daal ñun xam nañ ne daal boobu responsabilité mënuñu ko yaat gàddu ñu gàntal waaye nit moom jóge fële rek daa ne yàlla jox ma yàlla nekk ah, nit day ku mën a tooñ la waaye ku réere itam nag boppam la waaye ku réere itam responsabilité yi nekk ci matal kóllëre ak sàmm ko ak bàyyi woor loolu mooy temu sujet bi nga xam ne ci lañu ñu bëgg a waxtaane kon ñu xam ne al amaanatu sirrul imaan matal kóllëre mooy mbootu gëm yàlla mooy secret ba ndax gëm yàlla ak imaan nii lañ mel bu bii jógee rek bi ci des topp ca te itam nag moo doon takkaayu képp ku yàlla mës a yónni ndax dangay matal kóllëre rek li la yàlla yónni da nga ko taxawe lim la wax loo da nga ko jottali te itam nag moo doon màndarga boo xam ne ci la ñuy xàmmee nit ku baax bu ko defee kóllëre du ak matal kóllëre danañ ci ñëw ci biir bépp nit walla mbooloo moo xam ne dafa wesaaroo du wesaaroo mukk ci am mbooloo lu dul ne yàlla dana leen jox victoire maanaam lañuy ñuy lépp danañ ca danañ ko atteindre te danañ ko jot te itam nag yàlla dana leen defal ak texe waaye kóllëre gi nga xam ne moo gën na yayoo moo gën a yayoo ci ñu sàmm ko te wattonteeg moom mooy kóllëre gi jox suñ diggante ak suñ boroom bu ko defee naka lañuy ñuy sàmme gi dox suñ diggante ak suñ boroom tabaaraka wa taala mooy lépp lu la sa boroom digal nga nekk ca waaye sori lépp loo xam ne tere na la ko bu ko defee cër yi nga xam ne ñoom lañu yàlla may bu ko defee muy suñuy loxo suñuy tànk suñuy bët suñuy nopp suñu lamiñ suñu awra yépp ñu matal ci kóllëre gi nga xam ne moo ci dox ak suñ diggante ak suñ borom mooy ñu jëfandikoo ko ni ko yàlla bëgge te buñ ko ca jëfandikoo am ca ngërëmam waaye nag ñu moytu ci lépp loo xam ne dañ ciy jële merum yàlla waaye itam danañ ci jële sànja yàlla bu ko defee suñu cër yooyu nga xam ne tudd nañ ko sànq bu ñu jëlee ndax yonent bi sallallahu wa sallam dañ ko laaj ne ko waaw nit lan moo gën a gaaw ci li ko yóbbu safara mu ne lamiñ ak sexam moo tax ñu ne lamiñ yow jullit bi na nga xam ne kóllëre la goo xam ne dafa dox sa digganteeg yàlla mu may la lamiñ ba lépp loo bëgg a wax nga man koo wax ñu xam ko dégg ko comprendre ko li nga ca war a sàmmoonteeg kóllëre gi la dox sa digganteek sa boroom mooy nga fexe ba doo ci jëw doo ci ràmbaaj doo ci fen doo ci wax wax joo xam ne wax ju bon la waaye doo ci fent loo xam ne du dëgg ci loo xam ne lu deme ne di sosal nit ak di ko duural ak wax ju ñaaw waaye danga ko wara jëfandikoo ci tudd yàlla di ko sàbbal di ko ci sant di ci jàng téeréem bi diggante boo xam ne dafa yàqu nga mana jël sa tank dox ca wax ca salamin bamu mu jaar yoon waye itam nak nga ci wax deug mu yoy yep boko samonté ak mom di ci wax lu njariñ ndax yonent bi sallallahu alaihi wa neena mune boy mu wax na nga wax yiw wala nga nopi kep ko xamne day wax wax jo xamne man na andi lu taal réew walla lu ju wëlbati ay xolu nit boo ko naree wax nga noppi waxal yiw wax jàmm wax luy indi yiw walla nga noppi sa ñaari bët yitam na la wóor ne kóllëre la goo xam ne yàlla da koo sàmm fasanteek yow bim la koy jox danga cee war a moytu di ci xool lépp loo xam ne yàlla da ko xaraamal te itam nga leen di jëfandikoo ci lépp loo xam ne daf lay indil texe àdduna ak alaaxira bu fekkente ne sàmm nga kóllëre googu di ci xool lu dagan di ko jëfandikoo ci looy am ngërëmal yàlla na la wóor ne sàmm nga sa kóllëre ak sa boroom naka noonu itam nag mboolem sa cër yi sa loxo bi la nga cay liggéey li nga ciy jël li ciy joxe lépp dafa war a nekk loo xam ne dang ci am ngërëmal boroom bi naka noonu sa tànk yi sa biir bi li nga ciy def sa sexe bi yoy yep na la wor ne borom bi tabaaraka wa taala neena dana la ko laaj ndax neena na inna samaa wal basara wal fuaada kullu ulaika kana anhu mas'ula yàlla neena sa nopp yi ma la jox sa beut yi ma la jox sa xel mi ma la jox lolou lépp keut euleuk boo taxawee sama kanam danaa la ko laaj li nga doon déglu li nga doon gis li nga doon wax même li ngay xalaat ci sa biir xol te génnee goo ko sax yàlla nee na man xam naa ko te yii lépp nag danga nga taxaw sama kanam ma laaj la ko bu ko defee jullit bu ne war na moytu rekk di boyal maanaam bàyyi la mi ñam rek mu nekk di xas gori yàlla yi walla jaami yàlla yi maanaam topp réseaux sociaux yi lu la neex nga wax ko lépp loo xamal nit nga dikk ci réseaux sociaux yi ci lu ñaaw ndax ñëw na sax lu ci nit ñi di waxati lu rafet xanaa kuñ àndal lu ne mën nañ ko ko cee tagg waaye ku ñu àndalul lu ne lu ñoow lu ñu mën a xam ci yow danañ ko wax waaye lu ñu mën a sos sax ci lu ñaaw wax la ko danañ la ko ci wax bu ko defee sa loxo yi nga fexe ba bul ci lor mukk benn mbindeefu yàlla walla ngay xool ci sa bët yi loo xam ne yàlla xaramal na ko walla ngay def ci sa biir xol bi ak iñaan akuk soxor ak ak di diko jeme ci doom naks yi ndax iñaan yonent bi sallallahu alaihi wasallam dafa wax ne al hasud la yasud neena ko iñaan du nek mukk sang ndax ku iñaan lepp lu mu xam ci yow ci lu bax daf koy neub waye lu mu xam ci lu yow ci lu bon rek dana ko wax te lepp lu lay mana amal njariñ yitam bu mané wax ba dindiko dana ko wax ba dindiko wala bu dee am na doole jëf ba loola du agsi ci yow mu yàq ko dana ko ko jaral bu ko defee ñu fexe ba bañante itam bañ a nekk ci suñ diggante ndax yenent bi te yàlla nee na innamal muminuuna ixwatun fa aslixu bayna axawaykum wattaqullah nee na jullit yépp te senegal ñi nga dégg ci réseaux sociaux yépp kat man nga ne quatre-vingt-dix-huit pour cent yi yëpp ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah la ñuy wax dañu jàpp ne ay jullit lañ waaye nag jullit yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ne dafay sàmm nit ñi ci seen alal ci seen der ak seen jëmm waaw jullit neena du lor mbokkum jullitam du ci lamiñam du ci dooleem du ci xalaatam ndax li ñu war rekk mooy bëggante soppante ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na laa ahadukum xatta yuhibba li axihi maa yuhibbu li nafsihi képp kuy wax ne gëm naa yàlla naan ab jullit nga nee na loola du wér mukk lu dul li nga bëggal sa bopp nga bëggal jullit yépp bu ko defee bokk na ci kóllëre bi dox suñ diggante ak suñ boroom mooy lépp loo xam ne faratal na ko ci yow moo xam julli la moo xam joxe azaka la moo xam koor la moo xam aj màkka la nga di ko sàmmonteeg moom te matal ko képp koo xam ne doyadal nga ko na la wóor ne kóllëre gi doxoon sa digganteek sa boroom fecc nga ko mooy ba yàlla waxee na alastu bi rabbikum ñépp ne woon bala bale joojee mooy boo waxee ashhadu an laa ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah da ngay julli dangay ngay koor da joxe azaka boo manee dem màkka te am moyen yi mu mat nga di ko def bu ko defee yooyu yépp na nga di ko defee ni nga xam ne moom la ko yàlla bëgge boo ko deful rekk dañ lay boole ci ñi nga xam ne dañoo wor te itam génn nga ci maanaam seenu jullit yi mu ne bokk na itam ci kóllëre gi nga xam ne dañoo war a sàmmonteeg ñoom en tant que citoyen wala en tant que jullit mooy fonction bi nga xam ne moom la la yàlla jox nga di ko liggéeye nga di ko liggéeyal sa réew te itam mooy kóllëre goo xam ne dafa sox sa diggante ak diggante uma bi mooy nation bi bu ko defee li war ci ñun mooy ñu di ko liggéey ànd ak dëgg ak di ko sellal ak góorgóorlu nag def ci sa effort yépp ba li nga xam ne man nga ko nga def ko wattaqullaha mastataatum la yàlla wax ni ngeen ragal yàlla seen kemtalaayu kàttan liggéey bi nga xam ne fonction la mo xam fonctionnaire nga wala nga nek sax ku nek ci privé li nga ne sa cahier de charge charge nga xam ne motax ñu di la fay na nga fexé ba matal lool boko matalul manam di ca tappale wala nga cey tayel wala nit jox la papier nga waron ko ko meuna liggéeyal légui mu dem nga ne ko ñëwal suba suba mu ñëw ñu ne ko tey xëy walla génn nga te fekk mënoon nga koo def ci saasi wala nga cay xaar neexal buñ la cay jox na la wóor ne fecc nga kóllëre te itam mataloo ko wala boog liggéey bi nga walla liggéey nga di ci seet ak xaritoo wala ak mbokk na la wóor ne booba boo ko ca defee ba tax li la war mooy tey yow mi nga xam ne juriste nga moo xam avocat nga moo xam procureur nga moo xam juge nga ba ca président tribunal yépp a ci yem waroo cee def lenn loo xam ne danga ciy wut maanaam mu jaamala rafetoo ba lor kenn maanaam di wone ni kii sama mbokk la walla sama xarit la walla ñoo bokk parti walla ñoo bokk xalaat ba tax nga xañ ci kenn xaqam kooku itam boo ko defee na la wóor ne bokk nga ci ñi ñu tuddee ay workat bu ko defee itam bokk na ci li nga xam ne dañ koo war a sàmm mooy lépp luñ la dénk war nga caa def sa kemtalaayu kàttan ba du yàqu ci yow nañ la ko joxe bis boo koy delloo boroom mu mel na nga xam ne noon la la ko joxe woon te itam nag àq la ci yow ci saa yoo xamante ne nit daf laa dénk mo xam daf la dénk alal wala mu dénk le kërëm wala mu dénk la doomam wala mu dénk la njabootam nga fexe ba bul ko ca wor mukk nak ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena ayatul munafiqi aayatul munaafiqi thalathatun ida xadasa kadaba wa ida wacada axlafa wa ida tumina xaana neena mandar gak ñuy kame naafeq te naafeq yalla nena bo boo safara ña nga ne ak ca nga xam ne dem directement ak xal ya nee na ña chinyat koy xàmmee ci ñett koo xam ne lu mu la wax day fen lum la dël rendez-vous bu ngeen joxante mu foose ko te boo ko wóoloo ba këllërenteeg mom mu worla jikko yooyu nee na ku ko am ku boole ñett yépp na la wóor ne naa fekk piir nga ku ci am benn itam na la wóor ne amagul nga benn màndarga ci màndarga yi naa fekk yi bu ko defee ku la jox maanaam dénk la butigam magasin la walla tool la walla lu mën a doon rekk daal na nga fexe ba bul ko ci woor képp koo xam ne itam dafa ñëw wax la secret boo xam ne dafa bëgg mu yem sa diggante ak moom saa yoo ko waxee keneen rekk ne la wóor ne workat nga képp koo xam ne itam dafa am problème walla mu am lu ko jaaxal mu ñëw doy loola di ci diisoog yow moo xam ci mbiru diineem la walla mbiru àddinaam nanga fexe ba nan boo ko cay digal nanga ca góor-góorlu ba li nga xam ne tey bu doon yow noona ngay def nang ko wax loola te bul ko ca wor ndax jële nañ ci abu hurayra mu wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na al mustashaaru mutamanun képp koo xam ne nit dafa ñëw di la consulter maanaam di diisoog yow ci mbiram na la wóor ne fasante na ak yow kóllëre maanaam doyloo na la boo ko woree maanaam nga génne secret ba loo xam ne sa digganteeg moom rekk la woon na la wóor ne kooka wor nga ko bokk na itam ci matal kóllëre موي احاديث الناس في مجالسهم فقد يتحدثون بلا حذر ولا تامل مطمئنين ان لا هناك احد يفشي سرهم فيجب على كل منهم ان لا يخون صاحبه ولا ينقل حديثه الى جهه تاتي منها المضره نينا بوكو نتي كولري bépp ñoo xam ne ab association la moo xam lu mën a doon nag moo xam parti la moo xam ay xarit la moo xam daayira la moo xam sax maanaam conseil des ministre la wala bokk ak enquête boo xam ne dañ koo def ca gendarmerie wala ca police wala boog sax muy enquête boo xam ne dañ koo def ci affaire loo xam ne ma nga ca tirbinal nee na saa yuñ cay wax rek nit ki daf cay wax te du ci am benn loo xam ne daf cay wër-wëral day matal lépp surtout réunion yi du ci am benn arrière pensée ndax dafa yaakaar ne ñi fi daje ñépp ay gor lañ te ñuy mat sàmm seen lamiñ lañ te ñu am secret lañ itam nag saa yoo xamante ne enquête am na te itam dafa am itam loo xam ne maanaam liggéey bi ngay liggéey daf cee am yoo xam ne maanaam secret lay doon ci sa fonction walla secret de l'État képp koo xam ne bokk nga ca ñooña waxtaan ngeen nekk ci ruq defuñu ko lu public ngeen waxtaane ko nga génn wilipande ko génnee ko foo xam ne waru fa woon a àgg te loola di indi loraange na la wóor ne ku goree di nga ku workat nga itam nag te loolu bari na lool ci suñ jamono ji ndax xam nga enquête bu ñu def ca gendarmerie dafa war a dem rek nekk ci procès verbal ñu yóbbu tribunal waaye buy ëllëg nga koy gis ci réseaux sociaux yi te jinne yóbbuwu ko fa ña ko doon wax dong ñoo koy génnee te loolu am na yoo xam ne même secret professionnel la am na ay fonction yoo xam ne boo ko occupé ci dëkk walla ci réew walla ci benn post dafa am limite boo xam ne ñii rekk ñoo ko war a yëg ñii rekk ñoo ko war a xam ndax loolu bu génnee mën na indi loo xam ne dana indi rëng-rëng maanaam mën na yàq loolu képp koo xam ne jóge nga fa génnee ko na la wóor ne ëllëg danga nga taxaw ak sa borom tabaaraka wa taala te itam da nga ko layoog moom da ko layoog itam ña ko bokkaloon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na laa yatajaalasu qawmun illa bil amaanati nee na aw nit du ñu doo mukk lu dul ne ci wóolonte moo tax ñu toog ku nekk loo xam nga wax ko kon nag képp koo xam ne génnee nga ko rek na la wóor ne yow yàqkat nga te lépp loo ci xam ne andi na ci jafe-jafe ëllëg moo xam nu mu mën a doon rek lu yàq alal walla lu yàq der wala luy andi maanaam raj-raj loo walla xulook ŋaayoo na la wóor ne loolu ci sa responsabilité la te ëllëg danga taxaw sa kanamu boroom nga layoo ko ak moom kon nag nañu xam ne bokk na ci màndarga yi nga xam ne mooy ni nifaaq maanaam ak naafeq mooy nga wëllëranteeg nit war ko wala boo nga joxanteeg moom ne ko lii boo defee lii ma defal la lii wala bu ngeen ma joxee lii ëllëg danaa leen ci defal lii ñu jox la poste ba ëllëg nga wor bu ko defee fen yooyu yépp dañ ko war a jéem a bàyyi ci suñu diggante kon yonent bi sallallahu alayhi nee na ñeent daal képp koo xam ne benn jikko ci yow am na ci yow na la wóor ne naa fekk piir nga ku ci am benn am nga benn waxoon nañ ci sànq saa yoo waxee fen boo waxanteeg nit wor ko bu ngeen joxantee rendez nga njuuy ko saa yoo xamante ne xuloo nga ak moom itam nga sosal ko waxal ko loo xam ne dara du ci dëgg ngir rekk bëgg a am dëgg ba tax nga waxal gor loo xam ne bu ca jógee sax dee moo koy gënal dund bu ko defee yéen mbokk jullit yi nañu xam ne ay jullit lañ te jullit du wor mbokkum jullitam te itam nag yonent bi sallallahu alayhi wa moo waxoon ne seen dereet seen alal seen der yépp xaraam na ci seen diggante bu leen ci jël benn ci ñee yooyu di ko def ci sa mbokkum jullit doomu aadama rekk deram moo ko moom waroo cee wax dara lu salte alalam moo ko moom waroo ko yàq wëroo ko sàcc wëroo ko caa wor waaye itam nag ardam deretam yitam war nga ko ko ñonal ba lul ko tour bu ko gañ manam makarimul akhlaq muy jikko yu teddi nga xamne yonent bi sallallahu alaihi wasallam neena purma rek taxone yalla yonima pour ma defar julit julit yi sen jikko ku khas ba wax ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah dal da nga wara xamne yow da nga limité wu réseaux sociaux kenn du ci waxal gor ndax yonent bi nee na ida aradta an tadkura uyuba gayrika fadkur uyuba nafsika boo dematee ba bëgg a wax sikku keneen na nga seet sa sikki bopp nga fexe ba noo ko dindee ba mu tàqali koog yow te bàyyi nit ñi ak seenu sikk ku am góom bu ne fàng waruloo nekk ci piccu jàmbur te lool rekk nag moo am suñu réew ñoo ngi ñaan borom bi tabaaraka wa moom mi nga xam ne moo mën a defar yal na yàlla defaral ñu suñuy jikko defar ñu suñuy xalaat ba muy rafet defar ñu ba ñu am njort lu rafet ci suñuy mbokki jullit ndax inna baada zanni ithmun yàlla nee na yenn njort yi bàkkaar la loo xamul dara ngay analyser rek di wax loolu yàlla nee na bàkkaar la nañ ko moytu kon nag seen mbokk seen xarit imam Babacar Mbodj moo doon waxtaan ak yéen ci seen émission makaarimul axlaax ci seen chaîne télévision Safina TV di leen nuyu di leen ziyaar di nuyu suñu sëriñ Thierno Hamidou Yoroban di nuyu suñu téléspectateur yépp di nuyu suñu sëriñ sëriñ Mor Diop ak mboolem waa daara ja ak daara Hann Maristes bépp di nuyu mbokk yépp di leen ziyaar di leen balu xaq lépp loo ci xam ne lu ñaaw la rek jublu wuñ ko ci woon liñ ci jublu rekk moom mooy wax li dëppook téere yàlla bi ak li dëppook waxi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam يالنا يالا دفل ديغ اك توب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته